daleen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci yéglekaay yi tey la ñuy dooraat dialogue politique bi les échos ne front national de résistance du ca teew ndax dañuy sàkk ñu taxawal ab commission cellulaire indépendante ngir jiite liggéey yi force démocratique du Sénégal di ñaawlu anam bi Macky Sall di doxalee ak mbir mi tey ngaañi taxawaayu kujje gi waa société civile ci biir tribune di sàkku personnalité neutre di ko xamante ne bokkul ci langue politique bi bu ñu sukkandikoo ci journal bi dialogue politique baa ngi xaajale kujje gi ñenn ñi di xamle ne dinañ ca dem ñeneen ña ca des moom ne noppeeguñu ngir teewee waxtaan ya Macky Sall nag ci biir l'observateur di xamle ne bëgg na taxawal ab comité de pilotage ngir jaloog national bi njiitu réew mi nag di xamle ne pare na ngir satisfaire condition yu acteurs yi yëpp rawatina ñii di woy politique yi mbaadu la Diop li muy yootu mairie bu Géejawaay moo tax Macky Sall xajamal seen ànd Vox yi ne jëwrin gi ñu dénk wàllu koom geeg koppar gi dafa bépp compte bu direction de la coopération et des financement extérieurs bi la job jiite ba noppi di sàkku ngir ñu saytu tolluwaayu compte bancaire yu direction boobu ci jamono jooju Sud Quotidien dafa xëyee ak ganu Macky Sall ca France journal bi ne Macky soobu na ngir xeex terorisme ak extrémisme te bëgg na gàlloo kàddu Afrique gi gannaaw waxtaan bi mu sekkoon ak Emmanuel Macron nag Macky Sall xamle ne ne Sénégal dina dooleel xeex boobu rawatina ñuy contrôler réseau sociaux yi États-Unis nag ñoom nanguwuñu xaatim boobu déggoo Dakar Times moom dafa xëy ak tabbub Aminata Touré ca conseil économique social et environnemental ne la maison des retraités accueille Mimi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ci jamonoy Famara Ibrahima Sagna ba ci Aminata Tall jaaree ko ci Mbaye Jacques Diop ak Ousmane Masseck Ndiaye CSE moo mës nekk maison de retraite bu njiit ya journal bi ne ñi ko jot a jiite yëpp fa la ñu jaaree dem retraite ci wàllu politique Dakar Times di laajte nag ndax loolu moo nar a xaar kii di Aminata Touré ci diiru ñaari fan dong fukki bakken ak ñaar rot nañu ci tali bi enquête di xam ne ñiy loru si tali bi mu ngi gën di jéggi dayoo permis à point bi nag nekk na lu ñuy xaar jamono ji député Awa Gueye ne ñàkkum kaaraange mooy jamono ji jàngoro yi askan wi jàngoroy sida di gën di law ci borom ñaari tuur yi bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi ay jàngat yu ñu amal di siwal na ne mu ngi toll ci atum 2017 téeméer boo jël ñaar fukk ya te moonte mu ngi woon ci téeméer boo jël fukk ya ak juróom-ñett ci atum 2014 si jamono jooju Le Quotidien dafa xëyee ak ay kàddu Serigne Mbaye Sy Mansour xalif xalif général des Tidjane di ngaañi yar gi am ci Sénégal xalif bi nag di xamle ne nit ñi dañoo dëgër bopp te crise d'autorité moo am ci mim réew ñu utali jiwaat l'observateur bi xëyee ak coowal njaayum licence bu Sudatel journal bi di xamle ne procureur setal na na Ousmane si ñu tëj l'observateur ubbi Vox Populi journal bi di xamle ne taxawal nañ léegi monogamie générale ca Guinée muy góor bu nekk benn jabar bu soxna yooyu jubilé nag ñii di religieux yi ñoom dañuy ŋàññ boobu code civil Iran Ndaw di xamle ne loolu diine bu Guinée la waaye du diine yàlla bi imam Dame Ndiaye ne loolu mënuta am Sénégal Sénégal ndax ëttu kër diine yaa ngi fi mercato bi dina tàng jër stade quotidien di xamle ne gannaaw Hazard ay gët yu Real mu ngi ci ba ak Mané waa Barça moom Griezmann la ñuy yootu tàng jëpp la def tamit ca camp bu Modou sunu lamb ne gannaaw tëggkat yi doon ñaxtu njiite Rock Énergie di Cheikh Sow mu ngi ñaawlu taxawaayu xadim gajaga bi samp ndëndëm ngir jiite écurie bi Gris Bordeaux moom di ñaawlu taxawaayu Tafa Tigre de Fass si biir les échos di xamle ne Tafa Gueye erreur bu mag la def ndax mënul nekk directeur technique national bu fas ba noppi di nekk entreneur bu Balla Gaye 2 ci beneen wàll ga nag Gris Bordeaux di xamle ne jamono ji mënatul bëre lu yees juróom-ñetti fukki million li wa gënoon a fës ci li yëglekaay yi xëye tey di leen ñaanal kennalal jàmm